kër goo moomal sa bopp daanaka fii ci Sénégal euh, téeméer goo jël ñoo ko mën a am ngir soppi li ni mel itam daal di yombal ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw ñu daal di am kër lël bi ëmb ñu liggéey ci wàllu immobilier daal di ciy becc lu am solo. il faut que aussi ñu mën ci mën ci continuer mooy ay mécanismes c'est-à-dire que ay jumtukaay yi nga xamante ne mën nañ ko teg en place pour que ñu bañ a nekk euh, si si jënd parce que seetlu nañ ni que euh, soo waxee ni que jënd kër soo démarré 10 millions rek. Euh, exclure nga presque 60 pour cent de sénégalais. ci njàngat bu yaatu bi ñu amal yëf yi nag daal di fësal li ñuul ci soow mi. mooy déjà foncier bi euh, mën a ñu mën a mettre à disposition ñi nga xamante ne ñooy professionnels yi. Euh, mu bañ a mu bañ a dem si ay intermédiaires euh, lu ci topp nag mooy aménagement bi donc leneen lu ñu gis aussi mooy financement bi wax aussi ni que sénégalais yi jënd aussi dañ koy préparer. Euh, ci boobu la ndaje nag kàngam ñoo fa nekk ñu daal di fay ay fësal ay saafara yi nga xamante ni nag dina baax lool ci jàngoro am dëkkuwaay fii ci Sénégal. am na ay jumtukaay yu bees comme crowdfunding par exemple bi nga xamante ne nii ay nit ay cotiser mën a jëndandoo. Euh, genre tontine la mën a jëndandoo euh, kër wala mën a investirandoo et après ñoom su ko defee exploitation bi euh, lañ si mën a retirer. mébét bi moo di jëndkat yi banque yi ak ñi koy jaay ñu daal di xàccandoo di dóorandoo ca boobule bés bi ñu duppee ndajub 6 ans li fa tukkee ñoo ngi koy xaarandi fii ak diir gu gàtt teewul benn yoon nag ñu daal di ñaan ab partenariat daal di dox diggante privé bi ak public bi leneen li nga xamante ne mënees nañ ko cay sof moo di l'état Sénégal. daal gën cee duggal ay yoxoom